jërë ngeen jëf mbokk internet li si réew mi TV yaakaar naa ni xibaar bi ñu leen li war a indil di ngeen ci kontaan yéen amateuru làmb yi ndaxte ñaari xale yi nga xamante ni mbokk yi goxu làmb la ñuy dëkk waaye ñaari xale yi nga xamante ni fu ñuy waree ay champion ñoo fay waree bu ñuy jëmali stade waaye ñaari xale yi nga xamante ni saa yu ñu daan li nga xamante ni mooy stade bi dañuy tokkante organe bu leen dëkk micro ku nekk naan sa morom defoo fi dara ki naan la maa mën ki naan la tappet nga tappet nga maa la mën ak mënoo ko yaakaar na alburaax décroché ne combat bi ñu mel diggante fils de Balla poulain Balla Gaye 2 ak Sokko di frère si Eumeu Sène mbokk yi combat boobu alburaax jàppoon na ko bisu le 21 juillet bisu Balla Gaye 2 ak Moustapha Tine foofu sa arène nationale yaakaar naa ni na cool yi daal dina jeex maa la mën ak munoo ko nañu yoon yàgg maar bisu le 21 juillet ñu xool ki nga xamante ni mooy soq sa dugub tey ko du la jaaxal ak fils de Balla pré Balla Gaye 2 bi ñu xool ñoom ñaar kenn moo mën